kii di leen gërëm di sant rafetlu teewaay bi ci télévision Futur Média benn doomu Guinée euh, bu am jàngoroy euh, Ebola waxamaane la ñaar fukki atam teg na moo dawee dëkkam dugg si euh, ci Ndakaaru waxtu wi nag ñu ngi ko hospitalisé loola waral nag feebaru ébola kon moom moomee dugal na ko ci réewum Sénégal moom nag jàpp nañu ni sax dañ ko signalé autorité sénégalaise yi ñu wër ko ba daal di koy teg loxo yóbbu ko. kon kër docteur noonu mettre ko en quarantaine jël ji ñu dénk wàllug euh, wérgu yaram mi ngi ci janoo ak waay taskatu xibaar yi ngir indi ay euh, lerange ci situation bi gannaaw feebar bi dugg na fi noone mu fi duggee euh, plan de riposte bi ñuy teg bu weesoo fàggu ga ñu nekkoon léegi nu ñu war a taxawee Aïssatou Pay Fall mi ngi ci ligne bi Aïssatou ñu lay nuyu. waaw indi nañu ay leral ci cas bi ni mu demee waxtu wi. waaw ministre Eva Marie Coll Seck jot na joxe ay leeral ci li mu wax benn ndaw étudiant bu jóge Guinée bu am vingt et un ans moo daw euh, ñëw fii si Ndakaaru léegi nag bi mu ñëwee jot na am ay symptômes bi mu gisee symptômes yi mu dem hôpital Fann bi mu dem bi mu demee hôpital Fann ne leen mi ngi wàccoog bopp bu métti la nekkee léegi ñoom bi ñu ko gisee laaj ko ndax xam nga luy feebaru Ebola moom nag mu safontal wax ji mais ñoom ñu jot def ay prélèvement bi ñu defee prélèvement yi nag ñu gis ne cas bi c'était positif Yacine ñu jël ko isolé ko def ko ak en quarantaine mu nekk nii suñu Eva Marie Coll Seck wax ñu ngi koy faj son état est donc daal si li a wax daal jël nañu moyen dispositif logistique yeeg yëpp pour mun daal taxawu ko ba nga xam ni feebar bi moom fu mu nekk nii du du mën a wàlle mais ndax indi na ay leeral ci euh, fi mu jaar ndax euh, xëy na gannaaw mu ngi doon ñëw ak ay symptômes circuit boobu ndax euh, jëm nañ faa jaaraat xool ñooñu fu ñu toll xool seen wér-gu-yaram waxtu wi waaw jot nañ ko ko laaj mais daal ministre bi nanguwul tontu si loolu li si tontu rek mooy ne jël nañu dispositif yëpp fu mu toll nii pour xam fan la jaar mais nangu wax nanguwul wax ban quartier la ak ñan ak ñan la jot gis fu mu toll nii daal nee na bépp matuwaay jël nañ ko ñu def l'enquête bi ba xam ñan ak ñan la jot a jot a waxtaanal ñan la jot a fan la jot a jaar ba ba ñu mun euh, dem si ñooñu personne contact pour xam lu ñu mën a def. ndax frontière yi ñuy wax ni xëy na liñ ko tëjoon ubbiwaat ko door koo tëjaat ñenn ñi jàpp ni xëy na yéex na indi na ci ay leeral am na lu ñu ko mën a lëkkale ak cas bi wala jotewul dara. doxantu daal mooy ne frontières yi moom tëj nañ ko wante frontière dafa am ay pax-paxaan maanaam daal am na ay yoon yoo xam ne du lépp la ñu mën surveiller xam naa nag foofu la étudiant guinéen bi jot a jaar moom daal tontu boobu la joxe. ñu lay gërëm di la sant Aïssatou Pay Fall kon euh, dégg ko joroon ju ñu dénk gu yaram doon janook waaye taskatu xibaar yi ci Ebola moomu dugg ci euh,